koor gi ci kër gi kooru ren gii ci biir kër gi koolu saala ak ndeer ci kër gi saala moom day teg dil ndeer it di teg dil yanko baag baay ngaay di teg dil tan sa fi sunu umpaay loo ko wax saala ndeer mu mim ko waa Sénégal jël leen regardez dëgg yàlla kontaan nañ daal. waaw kontaan daal li lay ñaanal mooy daal waaw dem ba lay teeroo ma. waaw comme comme comme maire comme li Nder wax rek. bu dëgg yàlla bi ñu ñëwee kër gi boobu ba léegi rëccuñu ko. Mhm. li am fii moom. maire mention spéciale. bu suñu boo leer yow xëy yow lan nga xam si ndaw yow. muy Saal ak mère bi ak mère bi. buñ tegee commencé teg bëri yi. non ki nga mel dix dix dix huit et jàpp dix neuf heures. mais Saal yow loo ci xamul. waaw mais amul nga fii laa koy soo ko lekkee amul nga. ñu kay bu ma soñoon mère. weeru koor moom deux mois lay def. kon li ñu dee di kon ndax it dinañu rey ñun ah mais jërëjëf li nga bëgg. waaye sant yàlla rek. sant yàlla rek sant yàlla bu ko fekkee jàmm ak salaam. man daal xam lu ma xamul moo métti mais. Euh, xam nga nit ñi dañ naan bu ñu suba la ñuy waree la ñuy la nit ñi kontaan. la nit ñi dëkk turist moom vraiment xam nga lan moo métti mais bu ñu suba la ñuy waree. ah damay damay gisee fii dem kër gi. kër ga dafa am mais kër ga. mu doog ay ay tàggu fukki dërëmu mburu fukki dërëmu mburu. ay mayonnaise mayonnaise yoo xamante ne mooy mayonnaise yi def def ci pot yi. su ko maree na sax moom ceeb ay ceeb yu jël mais fii gannaaw bi. amaral la da ngay sant yàlla bu baax. waaw ci ah yéen moom dama leen ñaanal. waaw yàlla defal leen jàmm. lépp lu bëgg yàlla defal leen ko ci barke. aywa ñu bokk ko ak Abdou. yal na leen yàlla sàmm. yal na leen yàlla sàmm yal waaye doo waaj billaay yow. bi daal bëri na sax tey. billaay ñaan dañ koy jëlaat. te ñaan yi duñ ko jëlaat. déedéet waay tey gàcc gi maa jëlee. man daal maa war liggéey ba wàcc. jaar ci sama nijaay baay gaayo su korkoor bi nga xale doon yóbbu. yóbbu nañ ko. yóbbu nañ ko kay. waaye gàcce gi ma topp sama musóor gi sa xaw ma nu mu ko defee nag ñoom ñaar ñii. Ah, waaye ñoom dañoo xeex wala. Eh, bu ñu doon xeex mu yomb. suukar suukar bi ñu doon yóbbu. Oh. ci enveloppe. chaque année chaque année. waaw ah. tey benn junni dañ ma jox damaa rus ba xoolal sama musóor gi xaw ma sax mën naa ko musóor. non bàyyi ngaay bàyyi ngaay mais bàyyi ngaay yow baabu gàtt bi baabu gàtt bi te bëri te am sikkim nii baabu baabu sax. ma woowee dee waaye naa jaaw bàyyi laaj bali ma fi dëkk boobu nga naan ma woo ma. yaa fekkee na ko. waaw dégg nga ma wax rek dégg nga ma wax rek ñii duñu def loolu yëkkati nag. waaw vraiment mère yaay. yaay moo ñu yàlla xamal sax numéro yóbbu. xaalis bi yow yaa ko yóbbu. bu daaw géej yow. bu daaw géej. Fadiba daanul yóbbu. sama papa ñaar la daan joxe. Eh. daan na ko ëpp sax daan na ko ëpp te daan na ko ëpp. yaay ñii seen jëf la. wala ñoo leen nëb ñoom ñaar ñii la kenn yóbbu ko ci. non seen problème. Ah. ñoom dañu dañ leen a sis ci gën bu doon man lañ ko waxaat. nga gëm ko bu baax a baax a baax comme demee noonu ba demee noonu. man ah. maa ngi jël. dégg nga dégg nga dégg nga dégg nga dégg nga dégg nga moo leen benn affaire. waaw kuy naan di laabat. bis boo mandee fee. waaw waaw mais naa leen benn affaire. leçon mouton piisee. mu mouton piisee nag man sama piis ba léegi. takku ñu ko de ñu ko de ba léegi moom la ñu wootee. yow yaay man maa ngi ci biir damaa taal. da ngaa sonn defal dal ji naaj bee tàgg naaj bee ko sonal ndeysaan ndeysaan kenn ko dugg oh, sa. ci kër gi. góoru ren gii ci biir kër gi. góoru saala ak ci kër gi. saala ndeer it di teg dil. ngaay di teg dansa fi sunu umpaaj loo ko wax saala mu miim ko